الحمد لله نهنئكم ونهنئ انفسنا جميعا حلول هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي انزل فيه القران هذا الله علينا ونحن على الصراط المستقيم Malben moo leen di ñaanal weeru kooru jàmm bismillahi rahmani rahim baabu ajodu ma yakunu nabiyu sal allahu alayhi wa sallama baabu ajodu ma kaana nabiyu sal allahu alayhi wa sallama yakunu fi ramadana قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا أخبرنا ابن هشام عن عبيد الله بن عبد الله بن عتيبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن fa ida laqiyahu jibrilu alayhi salaamu kaana ajwada bilxayri min arriix almursalati bismillah baabu ajwadu ma kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yakunu fi ramadan bunt bi mooy buntab yonent bi ci weeru koor la gënoon a tàtte ci lu duur weeru koor mu ne yonent bi tabe la woon ci joxe xiw waaye daana gën a tabe ci joxe xiw ci weeru koor waxtu wi nga xam ne ci la ko jibril laa dajeeg moom muy gaaral alquran maanaam muy tariyaat alquran ci jibril at mu nekk benn yoon la daa def gaaral boobu ba ba at mi nga xam ne moo mujj ci dund yonente bi sallallahu alayhi jibril gaaral nag yonente bi sallallahu alayhi gaaral nag alquran ñaari yoon ci weeru koor woowoon mu ne guddi gu nekk jibril daf daal di seeg moom di ko déglu alquran ba ba al ba ba di jeex waxtu jibril ba teyaar moom nag alayhi salaam yonent bi gi daanaka gën a ci joxe yu ci ngelaw loo xam ne dafa rit maanaam ngelaw loo ngelaw moom mën naa indi taw waaye yonent bi moom dafa taw rek lay indi gàncax mën na cee génne suuf si deewoon mën naa dundaat waaye yonent bi nag moom sallallahu alayhi wa moom xiiwam ak mbaaxam lépp daf daa jot ci woo ak mbaax ci ndax yàlla ko allah moom wax na ne allahu almuti wa ana alqaatil yàllaay man maay seddale kooku nag su demee bañ ne ci weer wii ci jamono jii ci la gën a tabe kon xiw lépp ñëw na baabu man lam yadaa qawla zuuri wala amala bihi fi sawmi qaala xaddatana aadamu bnu قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه buntab ku bàyyiwut waxi fen ak jëfee ko ci koor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam solo naan jëlee ci moom mu ne ku bàyyiwul waxi fen ak jëfee ko yàlla soxlawul sa koor jarul sax ngay bàyyi sa lekk ak sa naan jullit yàlla mën na koo naftoo lu bon lu nekk ba mu des fen al muminu laa yakzib loolu la yonent bi sallallahu wax ci beneen xadis nit ñëw itam dugg ci lislaam ne ko damaa bëgg rek nga tànnal ma mel ni mbir moom xam ne dañ maan nag kii moom bu ko def te yi ci des nga bàyyi ma ci yonent dama ko laa tëgg mu ne mu dem waxtu wu bëggee mooy yàlla ne ah man kat jaayante woon naag yonent bi sallallahu alayhi ne dootuma wax fen te lii su ma ko defee dem mu laaj ma ci kanam nit ñi su ma ne defuma ko fen naa te waxu te dëloon naa ko ne dootuma wax fen alquran sax wax na ne wal wasnu yow may din xaq bés penc dëgg rek mooy lëngal man la xam doomu aadama ci kon nag li yonent bi wax ñu ngi ciy delluwaat koo xam ne mënoo bàyyi waxi fen ak jëfee ko yàlla soxlawut sa koor soxlawu sax ngay bàyyi sa lekk ak sa naan ngir loolu baabu hal yaqulu inni saimun ida shutima qala xadatana ibrahim bnu musa qala axbarana hisham bnu yusufa an abi jurayjin قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزياتي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له illa alsiyaama fa innahu lii wa ana ajzi bihi walsiyaamu junnatun wa ida kaana yowmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yasxab fa in saabbahu ahadun aw qaatalahu falyaqul inni imru'un saa'imun walladi nafsu muhammadin biyadihi la xuluufu fami saa'imi atyabu inda allahi min riixi lmiski للصائم فرحتان يفرحهما إذا فر إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. buntab ku woor suñ ko wasaagaar solo nañ jëlee ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne yàlla wax na ne jëfi doomu aadama yëpp moom la ñeel ba mu des koor koor moom man yàlla man la ñeel te man maay fay am na lu mu diggee ci julli soo di jullee lu ñu lay fay lu baax loo des lan lañ la cay fay ba mu des koor koor moom yàlla ci boppam jëmmi yàlla ci boppam mooy mooy pay gi te ku man wajada allah wajada kulla shay wa man lam yajidhu lam yajid shayan ku am yàlla am nga lépp ku amul yàlla nag amuloo dara mu ne koor pakk la su kenn ci yéen nekkee ci bési wu wooram bu mu gol xoj waxi caaxaan bu mu xuloo itam su nit ñëwee saagaanteeg moom wala rayanteeg moom na wax ne man damaa woor xadis barawee woon wax na ne da koy wax ne inni saa'imun marratayn mooy da koy wax rek ne man damaa woor yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi géñ mu ne maa ngi géñ ci ki nga xam ne bakkanab muhammad ci loxoom la nekk xet ak ku wóor moo gën a teey fa yàlla xet ak gët ak misik mu ne ku wóor am na ñaari mbégte yu muy bég su dogee dana dana dana dana ndax am na mën naa lekk mën naa naan ci lu dul benn problème bés bu dajeeg yàlla itam dana kontaan ca pay ga ko yàllay fay wala gis ga may gis yàlla sax baabu sawmi liman xaafa ala nafsihi al-usbata قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بينا أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء buntab koor ci koo xam ne dafa ragal ci boppam ak ñàkk ñàkk denc alxamata mu ne doon naa ànd ak abdullahi radiallahu anhu ñuy dox mooy yonente bi sallallahu wax ne mu nekk nekkoon nañu nekkoon nañ ak yonente bi maanaam abdullahi mooy nett li nekkoon nañu ak yonente bi sallallahu alayhi mu ne képp koo xam ne attan na waree fi takk jabar na takk ndax loolu moo gën a fekk ay gët moo gën a sange itam tëy ku mënut na woor ndax koor gi dana damm bànneex ab sëy ci moom ba dootu ko yëg alquran sax nee na wal yastaafifi alladina laa yajiduna nikaaxan xatta yuxniyahum allahu min fadli ñi nga xam ne amuñ luñ takkee jabar mënoon nañ fegu ba ba leen di yàlla di wërsëgalee doyloo leen ci loo xam ne danañ ci mën a takk jabar danañ ci mën a denc allahumma salli ala sayyidina Muhammad الحمد لله نهنئكم ونهنئ انفسنا جميعا حلول هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي انزل فيه القران هذا الله علينا ونحن على الصراط المستقيم Malben moo leen di ñaanal weeru kooru jàmm